merci beaucoup chers amis téléspectateurs ñoo ngi fii nga xam ne tey ñu ngi taxaw ki nga xam ne moo di Baxaaw Baxaaw bu Dabrens Baxaaw xam ngeen ko yéen ñëpp du ku ñuy présenté sénégalais yi ndaxte man mi di wax sax yaakaar naa sénégalais yi ñoo ma gën a xam Baxaaw ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne moo di lépp lu jëm ci wàllu musique ndaxte Vox Art bu ñu ko waxee art moo ko tax a jóg Baxaaw musique lay def musique ci art la bokk ñu fas yéene waxtaan lan mooy musique ak moom en fait de toute façon daal yéen ñoo ngi nii yéen a ngi noonu baxaw ci loo ne. sëñ bi maa ngi lay siyaar Ousmane. maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. équipe euh, Vox Art bi nga àndal ñëpp ku ci nekk maa ngi lay fekk fa nga toog jox loolu nuyoo bu mat sëkk ne leen asalaamaaleykum et excellent jàmm ci mbedd bi. donc euh, yaakaar naa ne yow moom ku ne xam na ne baxaw mooy laal yokk donc tey baxaw bu ñu ñëwee pour waxtaan ak yow ci wàllu musique tey Dabrems est-ce que mën nga expliquer turu Dablens fan waaw Dablens dafa nekk benn tour boo xamante ne euh, dañ ko créé depuis très longtemps parce que avant du woon Dablens mais Brain Shuttle lañ tuddoon y avait man Tafa Jibi Fat Bedshed Cool Island six la ñu woon léegi bu ñu tuddee Brain Shuttle euh, Brain Shuttle c'est-à-dire mooy Brain Shuttle mooy liy tëj cerveau quoi après par la suite comme que temps xale la ku ci nekk si ñun bon bëggoon nga am benn turu américain boo xoolee mais après bi ñu demee ba ci biir la benn grand frère Fat fat mooy ki amoon baat bu neex bi si ñun doon way ay Solange ay naw naw ni naw naw ni noon ko koy fat amoon benn grand frère bu tuddoon Alain Alain nañu ñu toog kër Mbacke dañuy jegante woon gàlle mun nañu doo leen changer seen turu groupe bi ngeen xool lu gën a gàtt loo xamante ne ne mun na gën a yomb wax euh, ngeen xool ko quoi fait benn phrase gars yi jékki-jékki après nee nañu tourné Da Bruyne Da Bruyne mu nekk The Bruyne si anglais jalaat ci Da Bruyne mooy borom xel yi mooy les cerveaux te nag significatif Da Bruyne dafa am lu muy tënk ci lettre bu ne boo xoolee DA day signifie que am na mooy la mort existe. la mort mooy daa bi teg nañ ko de côté. B bi mooy nañu bañ a R réer ñu bañ a réer A nañu ànd I nañu indi ji. enn dindi lu ñaaw dañ Sénégal maanaam nañu bañ a réer fexe ba ànd dem indi ji lépp lu baax ba pare fexe lu ñaaw dañ Sénégal looloo tënk Dabrens waaw donc ñu gis Dabrens nekkoon groupe boo xam ne nga ne six personnes la woon ñu dem ba mu des ñaar yow ak Jibi léegi lu waral loolu euh, le destin de Dieu qui est inévitable parce que tey ku nekk ci ñun rek commencé nga benn carrière boo nga xamante ne yaakaaroon nga ko euh, jeexal ak ñu ngi ko tàmbaleel mais yàlla moo dogal ne que moom dafa bind démb tey doog a ñëw on était six comme ni ñu la ko expliqué woon bi ñu demee par la suite Cool Island dafa teel a génn sax bien avant album di ñëw bi Alain Gueye ne on a réussi à faire album boo xamante ne ne euh, l'époque ça avait beaucoup marché franchement parce que nekkoon na période bi nga xamante ne concurrence bi c'était comme ça y avait ay jant bi y avait ay Black Mbolo y avait gars yu bëri sunu Flavour Daara ji Zaman donc ñu réussir génne benn album à cinq nekkoon booy li 5 aussi Positive Black Soul Awadi ak Degeti coaché woon ñu ci album boobu bi lañ def. après si lañ perte fat ak budget ñu devoon ñoom ñu décider arrêté par rapport ak seen ay propre décision bu ñu arrêté nag période boobu mu nekkoon benn période bu diis pour man parce que man ñoom laa xamoon Jibi ak Tafa ñoo ànd man ak Fat ak Betchet ñoo fréquentante ñoo ànd donc sama ay xarit d'enfance dañu ñoom laa mi noonu bi ñu demee ñu ne bon Fat ak Betchet dañuy dem il fale que nag quand même bu ñu defaat beneen album à trois lan lañu war mun def li nga xamante ne mooy tax sénégalais yi bañ gis absence boo defee benn album mu marché nga ñëw deuxième album gisuñu si ñeneen ñi foog nit ñi laaj ne mais ana diw ak diw léegi nag pour éviter ana diw ak diw on s'est dit écoute nan lañu war a mun a def ba génneewaat beneen hit parce que ñun suñu objectif à chaque fois bu ñuy génnee album on essaie toujours de sortir benn hit li nga ne ne Sénégalais dinañ si même bu dee benn morceau daal dinañ jël morceau boobu en boucle ñu ne nu ñuy def ba def benn hit par la suite si lañ dem côtoyer suñu papa Thione Seck mu ñëw ñu ne ko papa dañ bëggoon def ak yow morceau Asalou mooy mayoon naa la lu ma mayul kenn bi ñu ci amee idée boobu ak moom waxtaan ci ak moom wax dëgg neex yàlla per bi yombalal ñu ko comme pas possible luñ ci doon xalaat yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp gisuñu ko ci paa bi ñëw déplacé wu taal otoom jënd essence am ñëw ba studio Aziz Dieng Midi Musique enregistré affaire bi bi album bi bi son bi génnee ñu ñëw dégluloo ko mun na ma ah neex na de neex na trop mu ne ko waaw léegi nag mun ne ma lenn rek laa leen laaj mu ne ko waaw mu ne ma droit yi <laughs> te il a parfaitement raison <laughs> te nit ki moom wax dëgg yàlla il a parfaitement raison ci côté boobu et puis mu nekk loo xamante ne te deful ñu album boobu rek ak moom bi mu yemli ci Papa Thione daf ñu jël ci loolu bi bi génnee bu commencé def bruit mu mu jël ñu yóbbu ñu Gambie di def ak ñun tournée maanaam bu joué Kilimanjaro daf ñu exiger ñu ñëw joué pas première partie mais ñu ñëw joué en live ak moom ci biir soirée bi jox beneen public bi nga xamante ne ñun xalaatuñ ko woon parce que c'était beaucoup plus jeune mais moo njëkk a indi si public bi nga xamante ne ne ne ñii ay nit la ñu ñii ay mag la ñu ñii ay nit parce que dafa daan jouer soirée parce que yombul woon Thione Seck di tëgg soirée mu fees dell mu arrêté musique bi wàcce ay musiciens yéegal yeneen musiciens ne joué leen asaaloo ngeen déglu morceau mi def ak booy dañ la wan respect dañ la wan lu bari dañ la dañ la xamal ne ne suñu kilifa nga jaayuñu la dara loo xamante ne da lay sonal dañ ñëw nangu ne suñu kilifa nga dañuy jàng comme ni élève di jàngee ci maître am dañuy jàng te jàng boobu noonu ñu ci lañ toll. donc tey mais aussi gis nañu euh, période bi nga xam ne mooy euh, yenn génne ngeen ay single maanaam gis nañ fi euh, suur na mu doon morceau bu bu thématique. Hmm. gis nañ fi solu golo. Hmm. gis nañu récemment nga génne benn benn benn son yaak suwaadu bu tudd nax na ma hmm. donc yooyu yëpp di ay thème ay thèmes yoo xam ne ay messages yu fort la. ba tey ci biir musique donc yaakaar naa ne euh, yéen a ngi fekk si Ndiaga Mbaye lu mu doon wax ou bien Seck sax je pense même école la rek même waa Thione Seck dana naan musique bu diglewul te yeetewul ay nax la ñu gis moo son yooyu yëpp nekk ay son yoo xam ne dafa dal hmm. ci ci côté thème waaw boo gisee son yi mu neex sénégalais yi comme li ma lay expliqué dafay important parfois aussi euh, ñu génnee ay morceaux yoo xamante ne si ay thèmes la bokk dañuy xool ne que musique hip hop dafa bëri trop clash dafa bari trop ay métaphore parfois nga jël musique tàgg sa bopp dafa bien mais dafay baax aussi nga joxe ay thème dafay baax aussi ngeen ay morceaux yoo xamante ne ne sénégalais yi buñ ci jàngee fii ci jàng tey boo xoolee bi may ñëw joué aéroport de Noël film xale yi dinañ joué mais boo joué morceau nice nice na xol yi nice dañ koy bëgg parce que da nga ñaan sénégalais yi nice et pense que ne tey loolu moom la daara ji famille am boo xoolee daara ji famille da nga leen di suivre tu vois école la boo xoolee euh, génération bu yàgg bi yëpp koo ci dégg si ay texam da ngay sentir ne yaa benn tur bi nga xamante ne mi ngi siy jàng boo dégluwee awari idem boo dégluwee déggati aussi pareil boo dégluwee Carlo di waxi noppi ak ko Fata waxi noppi Amre Zayan da gis ne ne franchement c'est des bi nga xamante ne ne loolu la sénégalais laaj ñu nag yàlla daf ñu may que ne dañuy am chance def de telle sorte que musique bi ñuy def mu neex sénégalais pour mu musique bi thème bi neex sénégalais yi bi si boppam base bi foog mu nekk benn tube base bi su nekkee benn tube après yow loo si teg lu correct day neex sénégalais. mais mais tamit euh, gis nañu tamit fan yi passé li nga xam ne moo di wàllu seen côté. Mhm. wàllu rab bi. Mhm. rab bi donc clashante bi saagante gi ñu dem ba ci saagante ay ndey di ci wax lu ne mhm. ba grand yi di ci génn di wax gis nañ ci récemment dëggati wax na ci lancé na ci message yow loolu nu mu la def. man juste benn moo laay wax ci loolu te du ma si sori man je pense que ne. Euh, damay wax toujours rek gars yi nee nañu euh, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt ki pousse c'est-à-dire que tey loolu su amee euh, dañuy gis ne ne journalistes yi bëri dañuy jël côté négatif u rap ko tey tout le monde en parle parce que lu ñaaw la mais suñu lu rafet ñun duñu ko waneen exemple bu ndaw laa lay jox bi Canabasse ak ni def amee problème ñëpp a bind Canabasse ni dof fekk nañ xeex nañu Saint-Louis di rey nañ si ba ba wax si ay moor ne mbëkk nañ diw bi Canabasse ak ni dof jubóobe kenn waxu ci parce que ñoom image bu négatif rek la ñuy bëgg a gis si ñun ñoom ñëpp a mën rap ñoom ñëpp a xam lu ñu def ba pare ñoom ñëpp a nekk ay ay ay ay ay ay nit yi nga xamante ne sponsor yi dañ leen soxla te xam nañu bu ñu continuer saage dañuy perte loolu dañ koy bàyyi benn parenthèse da woon ñu jàll si phénomène la woon jàll na et puis ku nekk day trace route am ok mais bu fekkee ne ñoom toll nañ foo xam ne ñoom ñoo téye actuellement bokk nañ ci ñu téye rap bi actuellement tey wax nga ah, <laughs> non non non xaaral ñoom loolu am na yéen yéen dab euh, Dabrens Dabrens beneen affaire la boo beneen affaire la donc tey ku mel ni Dip am fu mu taxawee ngaa ko génnee fële am fu mu taxawee donc nga ne sponsor yi est-ce que sponsor yi aussi soxla nañu ñoo xam ne ñi ngi defante di saagante di di joxe benn image boo xam ne c'est pas négatif moom laa lay wax cest lii kenn soxlawu ko du sponsor kese mais suñu société soxlawul ñun image bu bu bu négatif et dafa nekk loo xamante ne encore ma la koy waxaat c'est-à-dire que aujourd'hui bu doon luy yàgg la daf ñuy sonal mais xam nañ ne ñun du yàgg ni nga ko déggee noonu jeex na dootoo ko déggaat boo ko déggaatee ay benn nit la ñaar nit mais dootoo déggaat keneen def ko pare nañ ci ñu ci war a waxal wax nañ leen si ñu ci war a seet seet si nañ leen si si suuf ñu ci war a yedd tamit yedd nañ leen si te ku ci nekk ci yow ku ci nekk si nañ def ku ci nekk ci yow xam nga li la war ak li la warul hmm. donc tey ñu gis tey ñi ngi taxaw di def émission bu tudd Vox Art donc ñu gis ne même télé yi sax ñi ngi jàpp ci aar bi mm. di di jàpp ci musique bi tey bu ñu xoolee ministre de la culture est-ce que artistes yi ñu ngi sentir seen bopp ci ci wa ci seen ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko jege waaw parce que je pense que man jotuma am ak relation ak moom parce que xamaguma ko gisuguma ko jëmagu jëlaguma audience pour toog ak moom. mais je sais que ne tey lu tënk ministère de la culture ku ci mel ni direction des arts xam ne lépp ci culture ñoom kundul ñu ngi jokkoo ak artistes yi nga xamante ne ne soxla nañ yenn affaires yi ñu ngi liggéey ak ñoom. parce que aussi pour dire vrai aussi ministre de la culture aussi nekk fi aussi pour artiste rappeurs yi kese daf fi nekk pour la culture sénégalaise foog mu leer bu amee budget du pour rap kese mbalax bi culture la si culture la bokk euh, peintre bi si culture. mais que musique en général mi ngi gis boppam ci ministère bi. waaw je pense ñi nga xamante ne am nañu lien ñu ngi fay déposer ay courrier ak ñoom am nañu li nga xamante ne lu ñu soxla si ministre bi moom bu dul du 100 pour cent mi ngi leen jox à tey ci gàttal rek conseil bu ndaw bi nga mën a jox groupe yi. parce que gis nañ groupe Dabnens ba léegi donte yàgg ji bi yéen a bokk ah mais lan mooy lan mooy secret bi ba nga xam ne groupe bi déggoo bi ak li nga ma wax nii léegi léegi mu ne na defal li defal li defal li donc lan mooy secret boobu. man déjà damay wax ne secret bi ci yàlla lay jóge ah ba pare yàlla dafa ne ci àdduna yàlla li mu sàkk yëpp jaamam la ci gën a bëgg mooy nit ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam respect boobu noonu boo ko joxee doomu aadama boobu yàlla mën na la suturaal. gis nga pour nga def tube wala pour nga yàgg fi yàlla rek moom moo koy bëgg tey bu la neexoon tey tey tey tey tey kenn du fanaan bu ko neexoon mais luy tax muy yàgg yàlla dafa xam doomu aadama lu ne ci xolom yàlla ñu gën a jege suñu xol ku ne loo yéene sa moroom xam na ko nit dina nekk këram bind album boo xamante ne bu génnee danaan album bi buy génne day am disque d'or album bi génn cinq personnes sax duñ ko dégg day xoolaat waayam xoolaat la muy yéene doomu aadama yi xoolaat nekkinam xoolaat jëfinam xoolaat lan la def parce que tey artistes yi bëri yuy fay maa la koy wax ak moo leen di fay du bay rek du dañ maa liggéey kenn liggéeyuñu kenn ak moo lay fay bu dee ak nag xalaatal lan nga def doomu aadama xalaatal sa ban fans moo mës a ñëw am ci yow yaakaar bégg la ci yow ñëw sa kër toog nga xool fans bi mu am nu mu mel nga jël ko dugal ko sa néeg tëddee ko àndul ak sa góom seen chauffeur liggéey ak yow pendant des années heure boo conseillé ba pare benn un million war de sa poche nga yëkkati benn trente mille jokk yooyu yëpp ay àq la sa jànk bi nekk si kaw liggéey ak yow pendant des années nga dem fenn am dara lu la métti dara réer nga ñëw nag sama jànk sàcc la loolu yëpp ay àq la jànk bi bu la wanee ginnaaw dem doo tax ko gisaa parce que sa xel dina non maa amoon jànk boo xamante ne ne yow ba léegi yaa ngi koy xamoo ndax moom def na wala deful yàlla téyira ba boppam rek di lay won ngay def muy échec ngay def muy échec nga ne man la laa def non dañ may liggéey kenn liggéeyu la temps damay gis na ne sax léegi booy sama dara du nekk parce que dafa am def mais boo yéenee sa bopp jàmm yéenee nit ñi jàmm ah barki Serigne Fallou Mbacke amoon looy def te yàlla du si teg loxo. maanaam yàlla xool rek lay fay et que c'est très important tey ñëpp ay ñoom ay porte de voix lañu buñ ci waxee ku ci nekk fa nga toog war nga mën a xool xoolaat sa bopp defaat autocritique ci sa bopp. jàngaat sa bopp yéene sa bopp jàmm mais yéene ko Sénégal yëpp pour Sénégal doon gën gi réew mais ba xaw pour ñu ñu tënk aussi pour ñu tëj gis nañu textes yi nga xam ne artistes yaa ngi woy ay woy yu am solo. ñu ci bari ñu naan baxaaw moo koy bind mooy bind musique bi ba ci woyu Viviane bi passé ci wàllu gaaral moo tax mu woy ko donc lu tax baxaaw bind woy boo xam ne gaaral moo tax ñu bind ko man nag xaw ma sénégalais yi ñoom ñoo ma laaj man ma lay laaj non mais juste que dañoo xam ne dañuy réere mbir eh, dañuy mbir man su may liggéey ak nit euh, nit koo xamante ne déjà dafa am benn dimension internationale euh, bu may génnee dara ak yow dañu ciy toog ñu waxtaan si ba pare Euh, Viviane dafa nekk benn sœur boo xamante ne ne sama diggante moom dafa jéggi sax musique parce que dafa nekk sama xarit nekk sama complice nekk nit bi nga xamante ne franchement parfois damay génnee damay génnee benn affaire boo xamante ne ne dama ko war a def mun a ma fiis naa mun a ma lii boo ko defee woon nii ak nii woyee nii ak nii defee ko nii ak nii ku lay defal loolu amoo loo koy amoo amoo loo ko fay ndax ko neexoon tey mun na am talent am téye ko pour moom du nit bi nga xamante ne dinaa ko jël benn morceau gaaral di ko koy jox mu koy génnee bi man bi may bind morse bi lii yàgg na bien avant problème di am yàgg na man damay bind ay textes yu bari tey sama tey sama sama téléphone. donc man may jékki-jékki rek mun naa toog sama téléphone ni am sama oto am kenn ku may xaar vite fait rek benn idée traverse mi rek ma commencé bind su may bind nag damay gaaw. mun naa bind tak tak après su ma paree nag si laay commencé éditer lan laa bindoon ni jël lii def lii bi may bind doo dara du question la dañuy bind pour gaara mais nañu bind rek pour wax ni sénégalais mel ñenn ñi. man mel naa ko yow mel nga ko keneen ak keneen mel na ko souvent da nga gis góor boo xamante ne dina ñodd lu mu amul pour am benn gel wala dina ñodd lu mu amul pour defante ak benn xaritam wala dina ñodd lu mu amul pour mën a egg fenn gars yi jox ko respect loolu dafa am si Sénégal am na si dëkk yëpp donc de pour gaaral benn message la boo xamante ne thème la pour sénégal yi jàng ci pour xale yi jigéen aussi bañ a dem ak seen benn xel rek pour lu ñëw rek fëx leen koo fet nañu bàyyi xel ci loolu na gars yi respectante suñu biir nañ joxante cër nañ dalawaat xel ci yàlla nañ gëm ne ne yàlla moom moo ñu fi indi yàlla moom moo ñu fiy jëlee nañu gëm ne yàlla mooy may doomu aadama mooy nanguwaat li yàlla def moom mooy nanguwaat lu mu may doomu aadama moom moo ne fa xaaloo li maa yurut lu ma neex ma def ko ci doomu aadama ba bu mu soobee donc nañu baadante ak suñu biir képp koo xamante ne am nga koo xamante ne mere na la te te ay détails fekk ko fa mu nekk jox ko na ko baal ma ax Abdou mi ngi ñëw euh, wax sénégal yi que ne euh, Viviane nee na mi ngi pare benn album en janvier te nee na balaa janvier dina may gars yi benn single bu du déranger xam naa dinañ na gaaru waala waar la ah. <laughs> je pense que demeewul noonu quoi en fait voilà donc tey lan nga wax aussi ci Equivox TV bi la seet si ci émission Vox Art Equivox TV dafa waroon nekk Equivox mbedd TV parce que seen lépp ci mbedd la ni ñëw gaari seen oto fekk la si benn décor fekk waa ji nelaw ngeen yee ko ah franchement daal man je vous remercie déjà ma nekk première personne bi def premier numéro bi je pense que ne tey fi ngeen bëgg egg yàlla na leen fa yàlla yegg si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla dimbale ci lépp yaakaar naa ne kanka ko ubbi doo leen ko rëccu ndax koo leen ne kaala ma yónnee leen lien wu baxaw bi moo ko njëkk a def dañ naan ah la parce que man xaritu ñëpp laa dañ naan ay ca jël si leen ma <laughs> Donc, euh, merci beaucoup, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Ici prend fin votre émission de préférence Vox Art. ñu ñëwoon dalal le bu mag Dablens. Donc, waxtaan nañu ci wàllu la moom wax na lancé na message. dégg ngeen ko donc ñu leen di jox dig daje prochainement ndaxte Vox Art nag émission la boo xam ne art moo ko tax a jóg musique théâtre cinéma ak lépp luy loo xam ne mooy art dessin ak yëpp danañ seeti ñëpp ñoo xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu aar donc ñi ngi leen di gërëm di leen di sant El Hadj maa ngi lay gërëm di la sant baax a baax merci beaucoup à la prochaine fois ci seen beneen numéro ci Vox Art Equivox TV jaajëf merci